allo. maaleykum. <laughs> salaam. yaa Oustaz. naam. ñu lay ziar bu baax. mbokk mi kan la. waa kii de El Hadj Jibi Sey lañ koy wax. ah El Jibi Sey na nga def. <laughs> maa lay ziar bu baax bi de. waaye yaa ngi jàmm. ñu ngi sant bu baax a baax. ana Serigne bi Touré. waa mi ngi mi si jàmm bisimilah. waaw dañoo kontaan lool ci waxtaan wi. te muy thème boo xam ne dafa mat a waxtaanee ci réew mi. Mhm. ndax déggoo jullit yi ak nekk bu war a nekk benn moom. Mhm. Euh, dafay lu jàmp. te mhm. maa ngi nuyu sax oustaz Bolle ak euh, sëñ Ly. waaw Seydou Ly xalaat di am solo yi ñu fi uh-huh. wàccee. Uh-huh. ndax euh, misaal bi ñu joxe ne ku doon jox jullit yi dara. Mhm. bëgg koo jox seen kilifa. kan la koy jox xam nga loolu am na jafe-jafe bi ci réew te yaakaar naa ne sax mën naa bañ a doon jëmm ji ñuy joxañ ne mooy kilifa gi waaye mën naa nekk kuréel. woo xam ne dañuy lëkkaloo di waxtaan. Mm-hmm. kenn ku ci nekk leeral sa pas-pas gis nga mm-hmm. pas-pas yi bu leeree. Mm-hmm. ku juum sax kuréel yëppay xamandoo ne kee daa juum. waaye du lu sëñ Tuubaa jàngale. du lu Seydi Hadj Malick jàngale. du loo xam ne jamaatu Ibaadu Rahmaan tam mooy seen pas-pas. ndax jullit bu xeeb moromam. wala jullit bu yaakaar ne moom képp baax ku dul moom moo ko gën. loolu yéen bi jàngale ko fenn. te it joxe na digal ne kenn ci yéen du gëm yàlla. gëm gu wér te li bëggal boppam bëggalu ko moroom. te lu wér. te nit mënta nekk ibaadu ba doon keneen ku dul gëm yàlla. Mhm. tijaan bi noonu xaadir bi noonu laayeen de ku mu mën a doon rek gëm yàlla gi ñoo ko bokk. Mhm, mhm. te li nga bëggal sa bopp bëggal ko sa moroom daa am solo. te lu wér. waaye boo yaakaar ne yow képp a texe. àjjana yéen képp la ko yàlla bindal. day mel ni day xat lool te loolu du pas-pas jullit. mbooloo itam yenn seen sewaan yi ciy am ba léegi ñu koy tuumaan mbooloo. Hmm. sànq wala wax na ci lu am solo. Hmm. te da koy faral di wax sax mooy kenn du tooñ ñu diba ñëpp. Hmm. waaye bu fekkee xam ne liy tooñ maanaam parce que su murid yi leer parce que su Ibadu Rahman leer. su boobaa ku bokk ci mbooloo yooyu bu juumee ñëpp ay xamandoo ne daa juum. waaye booy ñaaw njort ci sa morom nag yaakaar ne ka daa am leneen lu ñu jàngale du wuteeg ci saaf te ku ci gëstu ku mën a doon nag kuréel boo mën a bokk. rek xam ne dëgg njub rek rek la. léegi mënu leen a ñëw parce que l'islam diine dëgg la ak njub. Mhm. waaye daal xam naa ne fexe nekk benn moom. Mhm. lim jàppee ci leen foo ko nattuwee sax parce que l'islam ñu koy song ci bët bu ne. Mhm. buñ tàqarlu koo ne dañuy ñëw doole buñ ñëwee doole ne mën jàpp ci dama jàpp keneen dama jàpp keneen ndax bu yàggee l'islam raaf bi. waaye buñ nekkee benn nag booloo. bu ñu song doo dara. gis nañ daara yi fi mu ne gis nañ ci jumaa yeeg nangam ak nangam tumaranke bi nga xam da nga koy sentir ci lislaam ba ci li réew mi doxee ak atte yeeg lépp hmm. kon jullit yi nekk benn nag rawatina kilifa yi nga xam ne ñoom la ñuy xoolee lislaam tey hmm. seenu déggu bu leen tënk ba ñuy bokk di xalaat ñu réew mi doxee hmm. loolu jàmbaay bi foog nag wees kenn ku ci nekk boo nekkee sa roxo nag mu mel ni lislaam bu doon immeuble tey kenn ku ci nekk appartement bi nga ci féeti moo la gën a ñor immeuble bi bu immeuble màbbee moom appartement dootoo ko tudd waaw kon nañ bàyyi waaye nag lu sagal immeuble bi lu baaxal immeuble lu ko sàmm. loolu war naa bàyyi xel. maa ngi jégalu rek a ñëw nañ ci barke loolu parce que wuute wuute day moom. Mhm. du dañ du dañ mukk ci mhm. parce que lislaam bi ci baax daa bari ba xajul ci génn kër. Mhm. xajul ci génn kër de. baax na bari lool waaye nag ñoo bokk daje ci dëgg lu baax ak dëgg lu jub rek ñor ñu ñoo ci bokk daje. jërëjëf euh, Alaaji Alaaji Jibi Sey Eh, li nga wax rafet na trop eh, mu doon mbokk mu ñu xam nag wax dëgg yàlla am borom xam-xam la ab hmm. taalibe la bu teg ay mbiram ci yoon nag jàngkat la gëstukat la ku xam la